assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokk yi teewlu jotaay bi yépp di leen jox seen wàccuwaay waaye di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu nekk leen ci jàmm ak yërmandeem mu mel ni dañuy dellusiwaat sunu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi comme niñ ko baaxoo di defee muy jotaayu fàttalikonte waaye di jotaayu xam-xam ñu doon jàngale nag sunu téere bii ñuy wax aljawharun nafis sunu bàyyee xel nag sunu jotaay bii mujj ñu ngi doon jàngale bunt bi jàngale lan mooy ay sunna ci sangu farata waaye lan mooy ay ngëneelu sangu farata kon mel day ñëw ngir jàngale lenn lim la waxoon ne la am toj mu ndaw lay aju ca toj mu ndaw moomee la cay war ak la ca warut moo tax tey mu tàmbali ne fas dun lii ab bunt la fii ma ci lépp loo xamte ni taziidu dana dolliku bihi ci moom aljanabatu janaba alal asxari ci toj mu ndaw waxoon na toj mu ndaw mooy toj moo xamte ni lay tax toj ma deñ mooy dangay dem jàpp ji heure boo demee jàpp rek toj mu ndaw ma deñ na waxoon na toj mu ndaw dañuy tere ci nit ki bu fekkee amul njàpp mu laal ab kaamil wala lu mel ni julli ak xeet yu mel noonee bu dee toj mu ndaw nag dañ la ciy dolli toj mu mag dañ la ciy dollil yeneen yu bokkut ak yam la tere woon moo tax mu ne bu dee toj mu mag nañ la dollil ca loolee mu la waxoon ne la dañ koy bañ nga laal ko wala dañuy bañ nga def ko dañ la ci dolli laat yeneen sart toj mu mag nag bu ko waxee mooy toj moo xam te ni la koy dindi ma ngay aju ci sangu fekk sanguwut farata rek toj ma deñ kon boobaa toj mu mag la mu ne walam yajus daganut du xuulu masjidin tàbbi wala xiraatul quraani du caageena jàng alquran lil junubi ñeel aji janaba ja laa déedéet illaa ka aayatin lu dut ab aaya wa aayatayni ak ñaari aaya li ka taxawusi ngir léemu bi xayri mayin ji lu dut nar kon bu dee toj mu mag dañuy bañ ci ki amee toj mu mag daganut ci moom muy tàgg muy dugg ci biir jàkka kon ku amee sangu farata warta dugg ci biir jàkka donte day dugg ci bunt bi sax génnee ci beneen bunt ba dem yoonam waru jaataan bi warta jàng alxuraan xam nga waxoon na nag toj mu ndaw ma bul laal bu dee toj mu mag nag waxula laal kaamil waaye dana ja ay aaya yu bari lu dul benn aaya wala ñaari aaya yoo xam te ni danga koy léemoo wala da ngay doon àtte jàng aaya ba ngir wane ne àtte bi kat ci fii laa ko tënk wala yu mel noonu nga xam ne benn aaya wala ñaari aaya ngir léem wala ngir leeral loolu lañ la ciy may kon paj mu mag dañ lay tere dugg jàkka dañ lay tere it jàng alxuraan tari ko aaya wala ñaari aaya wala lu ko ëpp may nañ la daal aaya wala ñaari aaya mu ne mën a tereef na kullu xaalimin bépp aji xam wa xaabidin ak aji jaamu yàlla li xaaji sin ñeel aji lot an massil i ci laal ndox baari di bay aji sedd an yaatiya ci mu dikkee azawjata soxnaam illaa bax dama dut ginnaaw ba nga xamee ne axadda wut na aw jumtuwaay wala nga ne axadda xaroona aadatan aw jumtuwaay bihaa ca moom yusxinu goog dana tàngal maa ndox ma laakin waaye nag isaa axtaraaxu ndeem gaar na ko lextilaam ngént fama alayhi déet mu koy war baax dafa ginnaaw ba malaam ya dànge mu ne tereef na bépp boroom xam-xam ak bépp kuy aji jaamu yàlla dëppoon nañ ci ne képp koo xam te ni dafa amee janaba te fekk ñu tere ko mu laal am ndox mu sedd nga xam ne laal ndox mu sedd daal baaxul ci aw yaramam wala bu ko laalee mën na koo andil jàngoro jeneen jàngoro ne nag kooku tere nañ mu jotee ak soxnaam lu dut dafa waajal boppam nga nga xam ne dafa waajal boppam moo tax mu ne illa bax gi lu dul ba nga xamee ne axadda xaroona mooy waajal na aadatan ak jumtuwaay nga xam ne waajal na jumtuwaay boo xam ne day tàngal ndox mi ba pare nga xam ne leer na ko ne bu jotee ak soxnaam dina tàngal ndox mi dina mën a dem sangu farata nee boobaa mu door a jotee ak soxnaam waaye fekkee amut am ndox nga xam ne mënta sangu ci ndox mu sedd bi li war ci moom mooy mu bañ a jotee ak soxnaam lu dul dafa am loo xam te nii bu jotee ak soxnaam dina mën a sangu farata waaye nag bu dee koo xam te ni da nelaw gént nga xam ne kooku moom mënta téye boppam ngànt la am ndax mënta wax ne su nelawee damay gént dafa nelaw tëdd gént boobaa nag kooku ngànt la am kooku moom kenn du ko yedd ca loolee mu def waaye bu dee kee nag moom dañ koy yedd waaye bu dee kii kenn du koy yedd ndax la muy def lam def kat mënu ca dara ndax la mu ne fas doon lii ab bunt la fii tayammum ci tiim musaafirun aji tukki saara joj na bi xay maxsiyatin ci lu dut mooy lahu ñeel na ko tayammumun tiim zamaana tas tam jamono ja muy doxee wa misluhu ak kemam al mariidu aji feebar ju góor ji wal marida ak aji feebar ju jigéen ji li kulli naafilin ñel bépp naafile aw farida wala faata mu wax ne tiimkat war na ki nga xam ne dafay tukki di dox di tukki wala muy tukki waaye nag ca jamono jam muy tukkee tumuraanke na ca yoon wa ba amul ndox mu jàppoo boobaa kookee war naa tiim tiim da koy war mu tiim julli wax na nag ne bu dul tukki ba muy tukki nekkul tukki boo xam te ni ak mooy moo ko tax a jóg waaye nag li gën a lënk mooy donte tukki boobu sax day mooy bu waxtu julli jotee te amut lu mu jullee amul ndox war naa tiim julli nee daal kooku war naa tiim julli wala mu nekk koo xam te ni dafa feebar moo xam góor moo xam jigéen war li war ci moom muy tiim julli bu dee feebar nag mooy koo xam te ni feebar na feebar boo xam te ni xool nañ ko bam xam ne bu laalee ndox day yokk feebar ba wala bu laalee ndox feebar ba dina ko dal kooka bu bu bu boobaa kooku la war ci moom mooy mu bàyyi ndox ma te dem tiim julli wala bu amul ndox it mu tiim julli bépp julli boo xam ne nii julli farata wala xaari wu aji teew ja asaxnihu kay aji wér lil fardi ñeel na farata isa xaafa neem ragal na xuruuju waxtiha tàbbik waxtu wa lil osin ñeel ak ngànt za bii wala li naslin du naaf naafile aw li jumxatin wala jullik aljumxa wala janaasatin du caagine janaba lam tataxayyan dit muy dem ràññikuwut faqelaa xel muy nag bu fekkee ki nga xam te nii nag moom feebarut waaye dafa ñàkk ndox te waxtu julli wi jot na muy bañ waxtu wi raw ko te bu fekkee tiimut julli waxtu wi dina ko raw te ndox amut boobu boobaa kooku mën naa tiim julli farata ja balaa waxtu wi di ko raw kon ngànt la am waaye nag bu dee koo xam te ni moo ko tax a jóg bu boobaa du tiimal naafile ji ku mel ni dafa bëgg naafile yoor yoor bu boobaa bu ndox amul du tiimal naafile ji lu mel ni julli aljumha nee nañ du ko tiimal day bàyyi ba ndox am mu julli tisbaar wala sax mu nekk koo xam ne dafa ame janaba te mënta laal ndox nee na kooku euh, déedéet astaghfirullah du caagee ne julleeg néew janaasa du càggee ne julleeg néew la bu dee koo xam ne dafa war a julleeg néew te amut ndox mu mu jàppoo nee na kooko tamit du tiim di jullee néew lu dut dafa am ngànt maanaam nga xam ne moom rek moo war a jullee néew bi te bugg ko jullee wut néew bi mën naa yàqu wala dara nga xam ne ngànt la am te amul ndox kooka day tiim jullee néew waaye bu dut lool nag nga xam ne am nañu ko ma taxaw jullee ko moom li muy def mooy wër tiim di julli jullee néew moo tax mu ne wala li naflin du caagéen a naafle aw lu jumxatin wala jumxa wala janazatin wala julleeg néew lam tata xayyan ndeem ràññiku na fàq laa xelu kon bu fekkee wala jullee am néew te mu mënta ñàkk nga xam ne bu ko julleewul néew mën naa yàqu nga xam ne kii moom ngànt la kooku mu mën naa tiim jullee néew waaye bu dul loolu moom li war mooy bu bëggee julli farata mu dem tiim julli farata bi donte bu fekkoon day julli tisbaar nga xam ne tisbaar war naa dawal ñaari rakkay la waaye du dawal ñaari rakkay naafila yooyu day tiim rek julli tisbaar waaye du tiim naafila ba pare julli tisbaar day tiim rek daal di julli tisbaar di direct kon kooku loolu noonu la loolu mooy tiim bi nga xamee ne nit ki war na koo tiim fekk mu nekk ci ab tukki wala mu feebar wala mu am ngàntal ndox te ragal waxtu wi weesu wala mu nekk ci julleeg néew te amul ngànt lu ko tee nga xam ne ñàkk pexe rek moom rek moo ci sës booba mën naa tiim wala aljumaha moom bu ko tiimal day bàyyi ba aljumaha ji weesu bu ndox amee mu julli tisbaar kon loolu moo nekkoon bindu tey muy lenn ci toj mu mag li ñuy tere ci toj mu mag ak lenn ci tiim xam naa suñu jotaay yi di ñëwaat incha allah ñu yeggale tiim ci boppam ay farataam ak la ca aju kon ñu ngi wàcce kàddu yi di ñaanal ñëpp di ñaanal ñuy teewal jotaay bi yëpp suñu boom doon leen yërmande dégg ak topp defal ñu saxaadatu daara yi ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew in uridu illa al islaaha ma stataxt ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu